ndeysaan ñu ànd ak ki nga xamante mooy Dieye production mu ànd ay sponsor leader ku ci mel ne Alburax waaye nee naa la ko fàtte waaye Catalina borom king borom Tampico borom Armagnan Boy Paul ak doomu loola ndeysaan responsable Lora Boy Paul ak doomu Lora ndeysaan Boy Paul ngeen jàkkaarloo Boy Paul cokkaas na léegi Boy Paul cokkaas na léegi doomu Lora ngi ne tekk tekkaaral di ko déglu ndeysaan Boy Paul door na léegi benn laaw Boy Paul ak doomu Lora Boy Paul doomu Lora si digg géew gi ndeysaan ñaari mbër yaa ngi bu ñu jàppantee lamb ji jeex ndax ñoom ñaar ñëpp ay bërëkat lañu waaye nee naa la duma taay di bu baax a nga xamante ne mooy Cheikh Amadou Kara lan mooy xew takk na daan na ko da koo sàcc doomu loola daa sàcc booy pool doomu loola daa sàcc booy pool loola ngi noonu ndeysaan oh daan na ko mu ngi noonu ndeysaan ñu ngi woon ci septième combat bi oh ndeysaan doomu loola ngi noonu ndeysaan doomu loola ngi noonu